dalen ak jàmm li gëna a yene kay yi sang bu tedd ba sa Touba di sëñ Muntaxa mbacke am na mom yene kay yéenikaay bëy xëyee gannaaw jëf ji rafa jëm jëf dekk bu sell ba sa Touba mbënn mu métti ma amoon mu gën ak koppar jagleel ko askan nga xamné dañu dañoo lor si mbënn ma kay bi sëñ Muntaxa mbacke yëmu si lool ay kër lay defal su yone belal lu tol su ñaar témi kal jagleel ko ñi nga xam seen mbënn ma dafa daal yaq seen kër yene kay bi ne jamono jikko sëñ Muntaxa Mbàkke yoonu maamam la daal di door ci diggante Ousmane Sonko Amadou Ba ndax Ousmane Sonko woolu na ko si débat public Amadou Ba daal nak sey wuy yene kay bi laa mujj door na te ku daanu te ku daanu askan wi man laa woon gannaaw te ñoo wàll yëpp risque ba léegi ñu teg ko loxo si diwaanu Tamba di bukkaan gi gëm loo xam ne police waxoon na ko weeti na ko ba mu set ndax ne moom bukkaan na ko na ko ba mu set dañoo bëggoon teg loxo ki xam ne bukkaan gi gëm sa bopp Baty Lamine Dias moom ma nga jox waa Tamba dig daje le 30 octobre nee na daal nañ ko fekk waat sa tribunal ba di wax Sonko yee boobaa moo ñoom ñoo daal digalante yéen i ne Barthélémy Dias kay dafay xuppate tàggat yaram li si gën a fës bokk na si Ligue champion démb Barça tey ji da war naa jàkkaar ko xam ne Bayern démb nag ki xam ne Royal dafa jàpp ki nga xam ne mooy Dortmund di ko ngulli di ko ngulli di ko ngulli daf ko cinq bis nekk mu njëkkoon a ma ne yéeni kaay bi daal ne jamono ji si bit sukkoor bi nekk Sénégal war naa jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Égypte mi organisé xew wa sa fa nga xam ne mooy sa Égypte yéeni kaay bi Sénégal nag bu dóole Égypte dafay dem final xaar diggante Mauritanie a Sonko mooy jumaay jumaay mooy Sonko bopp pare man alas tajal